demain sur Malikia TV. barakallahu ñi ngi waxtaanee nitu yàlla un homme multidimensionnel euh, nit ku fa tabarakallahu ku yàlla mayoon nit ku baax nit ku yiw nit koo xam marqué na temps marqué na jamonoom ba fii ñu toll ñuy waxtaanee ay mbiram muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla taas ci barkeem. bi jaay sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke ay maamam. ba bi muy génn àddina 2017 leetar sax su ma ko bindee yóbbul ko su ma tëddee guddi mu tontu ma. la ilaha illallah. léeg-léeg avant ma koy yóbbu mu tontu ma. te ci gént la lay tontu li nga ko bind ci zaahir. bi ma mujj tontu turu yàlla la bu ma ko doon laaj ndax tariqa bi borom turandoom nangu na ko ko liggéeyam déet. yóbbu leetar ba jeudi vendredi samedi tëdd mu bind ko ci kayit bu weex toog. déchiffreel ma ko. ci gént gi ci gént gi. loolu ma mbër daal ka la jàggi